midaadi wa aqlaami liman saxsaxal yama kama saxsaxa saytaana wal jaxla wal qammaam midaadi wa aqlaami liman saxsaxal yama kama saxsaxa saytaana wal jaxla wal xamaam maxallaawu annal qaad asan xalquhu ama maasiya bilbaaxi la si xidmati ramaa من النار والشيطان قد عصم دما بربي إلى قدام من عنده أسمام نويت بمدحي من أتاني نواله wa inni bi ma lixtiira qad an ciyaaluhu Sud FM nasaakaata muxnin samad an misaaluhu wa wajaxani dunya wa uxra jamaaluhu nabastu firan lillahi jalla jalaaluhu bi matxi lasi amdaahu saxsaxal xusnaam yarudu bi jaahil muus tafallaahu li saman alayhi min albaqi salaamahu aysu an يقيني يقيني شاق في شر والعلن وليد قاد ربي بنبي بسر والأمن يقيني يقيني شك في شر والعلن ولي قاد ربي بنبي بسر والأمن يميني علي حدي نقد يري سنن صفيع كفاني دون ضر سوي البقي ضربت بأني كيس بانتباهه وأني ريان بأصفى مياهه توالي إلهي بعد سيري بجاهه ولي بان خير سعي بعد استباهه طويت طريق القوم واختم اقتداهه ولي قد قضى الحاجات برود والبسط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 ginnaaw ba leen nuyu ñu ngi leen di ziar di leen balu àq te di leen bal ak di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fi ci Ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee spécial la nuit di màggal nuit di màggal deux mille dix neuf cent quinzième wala cent seizième wala cent quinzième diggante foofu la ñu nekk ci ba ñu ko defee anniversaire ak léegi. mu tombé ak ñibbisi wala boog tukki Serigne Touba Xaadimul Moustapha ci géej gi. ilaahi ilal muxtaari. borom kaay leen ngeen santale ma sama borom ndax itam li ma yàlla defal ci teraanga defal ma nga ci xéewal. lot naa ci di ko di sant man donc nag ñii leen ngeen jàpp ci cant gi ndax bu ëllëgee lu may aña ngeen añ ca ilal muntaqa awsil surura mu nekk mbégte nekk fête nekk fierté ci bépp être humain ci Sénégal. sous raison bi ak mboolem ko ashhadu laa ilaaha illallah ñu ci bari seen nopp ak seen bët tegi ko wuñ ko ci Sénégal rawatina dëkk mag bii di Touba al Mahrousa wasalliman ala al muntaqa bil xisbi man xubbuhum xabqi di nuyu ak di ñaaral ki nga xamante ne moo fi Serigne Touba Xaadimul Moustapha Serigne Muntaqa Mbàkke ibnu Cheikh Ahmadul Bachir ibnu Cheikhul Xadim yal na yàlla boole leen bàyyi fi Serigne Muntaqa mu yàgg fi lool yàlla may ko wér may ko kattan sàmm ko bàyyi ko ci suñu kanam te saa wu gis ñu mu yàgg tobbi aw sas ñu yàgg ca jaar yàlla di dotti ay ngërëm ak i xéewal ak mbégte ci askanu senegal yàlla na fi sëñ Mountakha yàgg lool te ànd ak wér waaye di ko ñaan tam mboole mbokkam yi nga xam ne ñoom la bokkal diina ji bokkal ñoom askan wi mooy xulafaa yi nga xamante ne ñoo nekk ci këri diina yi ñoom itam te lool ci bisu Serigne Touba bi waaye bég lool ci euh, njabootu Serigne Touba gi bég it ci victoire ak ndam li nga xamante ne l'islam am na ko ndax l'islam rek a tax ñuy wax. rabaaxiya matxun lil la si wa inni ilal jannaati bil bisri munqamu rabaaxiya matxu lil la si matxu muxnamu wa inni ilal jannaati bil bisri munamu rafaxtu wa kulli muminun maa muslimu ci noonu nag ci la Sud FM seen rajo bi nga xamante ni Sud FM la tudd sant seen rajo la rajo de la de de grand événement nga xamante ni lépp lu xew mu taxaw ci taxawaay bi ka ci war ci la ñëwaat ak yéen ak ni mu ko baaxoo def ak yéen. dépêché na délégation bu am solo comme ni mu ko daan defee yebal leen ànd ak sunu responsable local yi fa nekk nekkal fa Sud FM Mbàkke Sud FM Jurbel ak mbooleem sunu correspondant yi nga xamante ne ñu ngi ci boor boobu ñu nekk ci Kaolack ñu nekk ci Louga ñu nekk ci Thiès. nga xamante ni su defee mi ngi partout euh, la noonu la ko yàggee di defee kon di ci ñaanal tam suñu directeur Baye Omar Guèye ñaanal ko wér ak wérle ñaanal ko kattan ñaanal ko tal ak fekk ba li mu yéene liggéeyal rajo bi yéene ko liggéeyal personnel bi lii na ko liggéeyal ñi nga xamante ne ñoo ko wóolu ba tekk ci bopp mbooloo mi yàlla yàlla man la ko ko bi jaay si di wa alami suul ñaanal Baye Omar Baye Omar yàlla na nga wér yàlla turan maatija li rabbi wa baabullahi lam yakku murtaja di ñaan la njabootam ñëpp kooku góor gi jaaroon jeewal moo ko wax salaamun alal maahi ci noonu nag ci la sunu mbokk sunu mag sunu xarit alxaaji oustaz Alioune Sall moom ma nga foofu ca biir rawdu rayaxiin bi nushi wal basi ànd ceeg sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe sëriñ Mbàkke ñoom tam ñu nga ci biir rawdu rayaxiin ci jamono ji ñu bihi wax wa day xamoo. Adama Ndiaye tuuti sëy Alxaaji Mouhamadou Moustapha Dieng. bihi dahra mujrimu. Ndeye ñoom itam ña nga fa ñoom ñëpp ñu ngi leen di boole benn nuyoo di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. muhibbun wa muslimun. ca kanam tuuti dinañ jéem a jokk ak oustaz Alioune Sall buñ ci daan leen jéem suñu mbokk Mbacke Sylla ñu ñëw ñu waxtaanee nag li nga xamante ne mooy bis bi en attendant ñu xool nag. rawdu yaaxin bi nga xamante ne ci ndigalu sëriñ Saliou Mbacke mu baax ma radiyallahu taala anhu wa rahmatuhu eh, tabaarakallaahu moo joxe woon boobu boobu tur wax ni doomi soxna buñ dajeetee xam-xam war naa génn te ñu jàng mag ñi jàng culture mag ñi jàng message mag ñi am na solo moo tax guddi màggal gi bu jotatee nañ daan def ñu bàyyi ko dajale ñi nga xamante ne ñooy cité religieux këru diine yi nga xamante ne ñoom ñooy doomi soxna yi di yebal seen délégation di feete big bis bi ñu day foofa ak suñu mbokk yi waa Mauritanie yi nga xamante ni ñoom itam kenn demoo ñu des di leen ziar bu baax a baax ndax Mauritanie eh, boo fa demee nga xam ni am na fu ñu teg Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala ci fonk ko ci sopp ko ci bëgg ko ku ci jël kàddu bu du sax bëgg daaneel ngir yéeneem li nga xam ne am na ko ci Serigne Touba kon dama waa Mauritanie ñu ngi leen nuyu baax waa Gambie noonu la ñu mel waa Guinée Bissau waa Mali waa waa waa Guinée dëkk nga xam ne sous région bi ñëpp ñoo ñu wër noonu la ñu mel ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon su ko defee ci kanam tuuti ñooñu ma la wax léegi daan jéem a ñëw ñoom ñoo jéem ñoo wax nag lan moo xew ci bis bi ak naka la guddi gi nar a tëdd incha allah. wallaahu nawara waadi wa annisu awa durra kafara fadaani ilaahi bil lasi buxda asxara wa bil muntaqa kulli min al aybi taxara falaahi bi fadlillaahi fi lawxihi jara bi xayri mihaa in duuna makrin wala xawfi xilaami alayha day nuy qidaami nicmati wa iqdaamuhu anqa dalaali wa wasmati qahartu bi rabbi man kafaahum bi nicmati وقلت وخير الخلق كل ورحمتي فخرت بربي من كفاهم بنقمتي وقلت وخير الخلق كلي ورحمتي قد انصرفت لله حاجي بقمتي لخير الورى من قاد لي أفضل العتق دعوت إلهي وهو مغن لمجتدي وساق لقير بالنبي كل معتدي دعاء استجاب الله بسرا لمحتدي وأبدي لوجه الله حقا لمعتدي دعاني إلى مدح المقفى محمدي إطاعات ربي موسلي بسوي الرصد أنا لاني الباقي أجال الفضيلة وينحو لخير دهر داء رسيلتي ونالاني الباقي أجال الفديلة وينحو لخير دهر دائم رسيلتي jërë ngeen jëf mbokk yi kon nag ñu xaal léegi rek suñu mbokk yi oustaz Alioune Sall ak Serigne Mbacke ñu jot ak leen rek incha allah waxtaan ak ñoom waaye lu jiit loolu ñëw nuyu suñu mbokk alxaji moom Momar sekk mi nga xamante ne tey jii ñu nag moom ñoo waroon a jàkkaarloo ndax ñu ko daan defandoo ak moom fii di jokkoo mbokk yi di ci waxtaan kon nag euh, moom itam ñu jotal ko nuyoom rek jotal ko ziyaaram ak àndam ak ñun kon ca kanam tuuti rek daañu leen dugalal sunu mbokk yi incha allah waaye lu jiit rek mbokk yi ñu ubbi leen rek waxtaan ak tuuti yéen euh, balaa sunu mbokk yee jekkasandiku xasida gi nga xamante moom laa tiim ñu tuddee ko Mawaahibu Naafi' dama bëggoon ubbi rek pour nga wax pour nga xam sëñ Tuubaa yërmandeem ak ñi nga xamante ni noonu la jekkoo ñaan ak ñi nga xamante ne noonu la dëkkaaleek boroomam dëkkaaleeg rasulullaahi sallallaahu alayhi wa ndax ku nekk nga dëkkal kook nga gën a miin kooku nga gën a xam foo koy jaar foofu nga gën a xam nooy nooy duggee ci ay ay dossier gis nga Mawaahibu Naafi' ci ci ci ci ci kii bi xam naa ca kanam tuuti mbokk yi moom su ma waay kon maa ngi ñëw léegi incha allah bu soobee suñu borom jéem waxtaan ak yéen euh, Salif Sow maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax moom itam ci équipe bi la bokk suñu équipe bi nekk foofu ca dëkk ba ca Touba ñu ngi lay nuyu baax Salif di la ñaanal wér ak wér léeg du ñàkk rek ci kanam tuuti xam naa nga gën a jege sa gaañ yi ndax itam daawoo ko yàq fenn kon yaa nga cee yëf yi kon nag euh, duma bëggoon rek Salif bu wax mbokk yi. Eh, Serigne Touba yërmande jëmm yërmande ji nga xamante ne am na ko ndax xoolal eh, salaatul fatiha bi nga xam ne moom la moom la defee tarjimaanu eh, mooy bu naafiya allahuma yaa akramu lu ko jiitu allahuma yaa akramu yow buur bu màgg bi nga xamante ni dara kawewul dara toom tolluwul ak jaw nga xamante ni rek ku xam nooy ñaanay sa borom foofu ngay foofu ngay foofu ngay ubbee sa ñaan salli ala sayyidina muhammadin yàlla nga dolli xéewal wala nga yàlla nga julli ci sunu sang ñun muhammadin muhammad alfaatixi mi nga xamante ni moo ubbi la tëju woon lépp nga xam ngeen ni ca jamono yonent yàlla isa ci la e, buntu risaala tëju woon waaye moom moo ñëw tijjiwaat ka alfaatix li ma uxliq nga yooyu dafa tëju woon kon moo ko ubbi alxaatimi itam moo tëj li nga xamante ni tam mooy la jëkkoon a tëju mooy bunt nu booy ci moom la moo ko tijj moo ko tëjaat naasil xaq ki nga xamante ne moo wisaare dëgg ba dëgg di dëgg mooy Seydina Muhammad salaa salaam lu ma ko wisaaree bil xaq ci dëgg naasil xaq bil xaq jël na dëgg wisaaree ko dëgg lislaam ay dëgg Muhammad ay dëgg alquran ay dëgg mu ngoog haadi ki ngeen ki may wax su ngeen ko xamul mooy ki nga xamante ne mooy l'orientaliste ki nga xam ne moo orienté nit fu mu leen jëmee ila siratikal mustaqim jëmale leen ci sa yoonu jëm xocc wi te mooy lislaam kon loolu lislaam rek mën nañ ca xool dëng mbaa ñu gis loo xamante ne am na lu ñu cay génne waaye lislaam moom dafa jub xocc ndax mooy kër yàlla ci moom rek lañuy ñuy julleeg di sëlmal déedéet wa ala alihi ak i waa këram ay ali alihi ay waa këram bokkul ak sax bi waaw xaqa qadrihi kem talaayal moom na mu toll moom Moustapha wa miqdaarihil azim ak gëddaam ju màgg ja yow yàlla ni nga toll ak ni nga bëggee ku jullee ci moom ak moom na mu toll ak gëddaam na mu toll kon Moustapha sallallahu alayhi wasallam dañuy wax rek waaye kenn xam ko ku sunu borom sëñ Tuubaa nag daan ni wajal xaasi lamdaax jaalibatan ilal imaani wal islaami wal ixsaani ila saadati daaimati yàlla maa ngi lay ñaan am ndax yii nga xam ne moom laa fas yéene dotti di ko tagge sa sa sa sa sa sa jaam ba sa ndaw la te ñoom te ñun muy sunu sang wajal xas am daax jaalibatan ila imaan yàlla na nekk bayit yoo xamante ni ku ko dégg mu ñot di la jëme def ci yow ak liimaan def ci yow ngëm wal islaam def ci yow itam diine diine islaam ju sëkk waaye diine tam am na lu ko gën a garaaw te mooy wal ihsaani ak rafetal jibril dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam soppali ko jëmu nit ni ko maahul islaam mu wax ko lan mooy islaam mu wax ko lii lislaam mu ni ko lan mooy imaan mu wax ko lii imaan damay bañ wax di guddi moo tax ma ma yam foofu nee na ba mu ko waxee ba pare mu ne ko maahul ihsaan mu ne ko ihsaan de an taabudallah ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mu ni ihsaan day day mel ni ku ko ni booy jaamu yàlla melal ni yaa ngi jàkkaarloo moom ni jàkk ci moom di gis di ko gis su fekkee ne mënuloolu loolu jàppal ni moom mi ngi ni jàkk di la gis mu ngoog ci commentaire bu gudd Sëñ kon xasida yii képp gis bind yi wala képp ku dégg ko fu koy jànge na nekk ku koy ku lay orienté ci liimaan mu dolli ci yow ngëm def ci yow lislaam def ci yow lexsaan wa ila saadati daaima defal ci yow nag mucc gu sax dàkk dàkk dàkk dàkk wa farrex biha rasulullahi déggal mu ni nag maa ngi lay ñaan yow yàlla xasida gii may bind e, yàlla na nekk mbégum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko jàngee rek yàlla na yonent bi kontaan bég ci e, e, abyaat yi nga xamante ni moom lañu koy jànge xay suquriyaat fu ñu koy jànge aw kotibaat fu ñu waa mbaa foofu koy binde aw nusret mbaa fu ñu koy xoole même jàngoo ko sax nga ubbi rek di ko xool rek abadan amin ya rabbil alamin ba faw ba faw amin ya rabbil alamin wajaal mimma tataxanna biha xoorul aynu wal yàlla yàlla nga def yàlla yàlla nga def mimma tataxanna biha ul jigéenu urul ay nii nga xam ne bu kenn ni woon yër yër àdduna rek daanaka mën na ne jant bi wala boog géej gi mën na ñiir mbaa boog éclipse éclipse mbaa mën naa am ndax leeru kooko ñoom sëñ Tuubaa nee ne yal na yàlla nga boole xasida gi ci jigéenu uur ay ya yanuy wayal góor àjjana ëllëg yal na ci xasida gi bokk jeeg ja ak njegemaar ja ak ñi nga xam ñooy puukare àjjana yal na ci téere bi bokk ja eh, eh, fil jannati lati wa'ada al muttaqun àjjana ja nga xam ne nag moom nga limal moom nga woon way ragal ña yàlla wajaal xaa yàlla nga def xasida gi min ahabi shukri mooy ñi nga eh, cop ni nga bëggee ku la ko sante bëggee ku la ko gërëme yàlla nga yàlla na xasida gi nekk sa mbégte yow yàlla yow sunu borom subhaanahu wa taala lii moom la sëñ Tuubaa ubbee xasida gi nag départ ko bismi illaahi yan mu la haa i bismi maa ngi tàmbali suma wax ak sama jëf ci tur yàlla mi nga xam ni moo ñu bind moo ñu sàkk moo ñu moom yan mu mi nga xamante ne mooy balal lu haa yi suñuy may bilaa ma naa yi may yoo xamante ni amul du jeex mukk wala intihaay te amul fu muy yem kon xam dan cant li rab rabbi ñemeel ñeel na sunu boroom xëyal mu rabbi gën gi boroom sunu a xal bii mu nga xamante ne moo def ci sunu xol bii bi lépp daay lu ñëpp di roy lahoo sukuri cant ñu yàlla nag bilaa ko fuuri dootuñu ko wedd mukk wax wa nasiir yi te mooy sunu ndimbal fii ak fa nu jëm min hu fidda ay tey ci moom la ñuy jotoo abadan laxooti bi moom la ñuy roy bilaxti ginnaaw laxoo xitaab yi moom lay tagg maax ci daay ànd ak way farlu ya la ko ridaa yi gërëm naa la lakka sanaa yaa moom sama kedd lakka ci daay ci yow rek laa wéeru ma ac ci day ànd ak way way farloy yaa yow mii nga xamante ni yaay ramm ku mu mën a doon yaa man xamaani yow mi nga xamante ni yaa ñuy aar yaa ñuy làq am man jafaa ci képp ku ñu béccangal wala képp koo xamante ni mi ngi jublu ci ñun bi max yu daay ci jéem a far sunu sunu sunu liggéey ba sunu taxawaay asbir sutuuri aslih umuuri kasil xuyuuri sëñ Tuubaa asbil sutura yàlla yàlla nga sëmbërtal sunu sutura aslix umuri nga yéwénal sunuy mbir kasir xuyuuri yàlla nga bari sunuy xéewal dotti sunuy may bilaa ki daay te yàlla boo ca benn jafeñ-jafeñ yaa man ajaaba yow mi nga xamante ni yaa woo te di wuyu manis sa jaaba képp ku sàkku ko wuyu xab li ijaaba waay waay wuyu ma visani daay ci darajey borom drapeau ba kon sëñ bi lii rek lañ doon ñamani en attendant ci mooy bu naafiq nga xam ne commentaire bu yaatu la eh, jëmmi yërmande gi nga xam ne sëñ Tuubaa daf ci am yërmande ak it jekku ñaan xam ni muy ñaanee boromam subhaanahu wa taala te sunu borom daf ne wattaqullah wa su ngeen ragalee yàlla rek sunu borom nee na ma xamal leen te ragal yàlla gi ci sëriñ Tuubaa njub gi ci sëriñ Tuubaa ak ngëm gi mbaax gi ci moom tax na bu musaan ni cas palimaam di bind araf wu nekk daw di ko jubal ku ne naan ko bind ma ku ne naan ku ne ko jël ma kooku ko ragal yàlla dëgg ba nga xamante ne am nga euh, xalaawatu imaan mooy toll foofu ci boromam subhaanahu wa taala kon nag yal na nu ko yàlla fayal yal nu ko yàlla gërëmal yal na yàlla dotti ay mayam bu yaatal ko lool yaak yàlla bu yaakaar tas yàlla yaa tax nit ñëpp riir dëgg dëgmal fa wuti fa waaye képp ku fa dëgg dëgmal mbaa nga wuti fa la tax nga dëgg mal fa yàlla na la ko yàlla jox bi jaay si li wujud wa alami shuhud yàlla man nga ko sañ nga ko yàlla yaakaar tas riir mi xërëf ji ñëpp daw di fa jëm yow yàlla jomm nga sab jaam di la yaakaar ngay tas yaakaaram jomm nga sa sab jaam di la tàllal loxo ngay fël loxoom kon yàlla ñu ngi lay ñaan sunu mag ñii rawatina sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yi nga xam ne moo xew la tey yaakaar ji jaam ñi am bàyyi ko fu nekk taal yi ay oto dugal ci seenu njaboot ñuy dugg avion dagg billet ñii dugg ay saxaar gi ñii jaar ci gaal yi ñii jaar ci ndox mi ci sa jaam bi nga xamante ni kenn la ci sa jaam yi nekk fii ci tuubaa nga nangul ko ba dëgmal xol yépp dëgmal ko sopp ko bëgg ko am ci moom yaakaar yàlla yaakaar jooju yàlla bu mu tas yàlla bu yaakaar ji tas ku fa jógee yàlla nga kiilu luy kiilu mooy yàlla nga tonowu luy tonowu ne yàlla nga bénéfice wul la nga bëggoon lépp yàlla nga ko am kon ci kanam tuuti rek ñu jéem a xool Oustaz Alioune Sall sëñ Mbàkke si la sama ñaari gaañ yi kenn laaj yi mën a jot incha allah ngeen jëf jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen rajo Sud FM 98.5 dafa mel ni oustaz Alioune Sall mi ngi ci biir asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum allo. allo. oustaz Alioune. bisimilah. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu. maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm. maa ngi lay delloo nuyoo di la ñaanal jàmm yow ak tawfiix di la masawu coono yi. jërëjëf Sall jazaakumullaahu xayran. amiin. Euh, fi mu toll nii présentement yaa ngi ci biir Rawdu Rayaahiin bi wala la nan foo toll. maa ngi ci biir Rawdu Rayaahiin. waaw. waa is bu tarixee ñoo yëkkati sin di noonu. Ah. di xaaraale gan ñeer conférencier bi. waaw. Euh, saal baa ngi tàmbulee am ay nit macha allah. gëñ. Ah, euh, waa xisbu tarqiya ñoo toog noonu di yëkkati seen xasida macha allah bu am solo googu. gëñ ah, muy xasida suñu jiiti. ndeysaan. fi leen tol nii di xaarale gan ñi. ndeysaan. te xam nga ne barab bi suñu defee cérémonie bu ëllëgee incha allah. ci lañ koy ci ngoon tam ci la ñu defoon waxtaan wu am solo bi nga xam ne ci la ñu ko defoon. waaw. Euh, tubaarkalla di barab boo xam ne bi am na solo lool. nga dëgg kon loolu la ñuy tollagum nag waa nga dëgg léegi nag nag kon defal ma tuuti defal ma tuuti ak njàngat euh, ci ci place bi foofu noonu naar yi suñu mbokk nga xamante ne ñoo dëkk euh, Mauritanie euh, ni ñu fonke màggal gi ak ni ñu fonke sëñ tubaa nga xam xamante ni daanaka bu ngeen xawee yéex sax ñoom ñooy ñooy gën a occupé bi te ñoom ñoo fay mujj naka ngay jàngatee ñoom ni ñu fi ñu dëkk sëñ Touba ak ni ko fonke waaw ñoom ña nga toog. ñëw nañu. buñ ñëw dañuy toog ci càmmooñu taabal ji. waaw. foofa it lañ tàmbali ñu ngi ne di ñëw. Hmm. lu mat juróom jàpp juróom-benn ñëw nañ ci ci délégation. Hmm. ndax ñoom xam nga seen diggante xam-xam moo mel noonu. dañu foog seen diggante ak sëriñ bi moo mel noonu. Hmm. Euh, am na fi sax ci dëkk bi xam nga ne ñoo xam ne fi lañ jógee def foofa jàngi woon. ca majaalis yaag ñu ne dégg moo tax ñoom tam diggante boobu moom ci am. dëgg la fi ne musée bi nga xam ne incha allah Cheikh Mountakha war na koo defar. waaw. am na ay mbir mi bi yoo xam ne dañoo bëgg ñoom tam bu noppee. waaw bu buñ ko indi ñu mën ko copier indil ñu indil ñu ca yu am solo. yoo xam ne ñu ngi fa ci Mauritanie ndax ministre bi nga xam ne moo yor wàllu njàng bi ca Mauritanie. Hmm. bi mu fi ñëwee dem na ba ci université bi li muy xat-xat mu mu mu visité ko. Hmm. xool programme bi tam laajte ko. Hmm. xool itam liggéey bi kañ lañ jàpp na pare. jàpp na bu noppee danañ fa mën a andi ay professeur yoo xam ne Mauritanie la ñu jógee. Hmm. ci bépp xam-xam boo xam ne bii fànn xam-xam la bu ñu soxla ci. Hmm. xam-xam yi nga xam dinañ ko jàngoo ci université bi. est-ce que est kon ñoom seen teewaay ci barab bi lu am am solo la Oustaz Alioune. Euh, dégg naa ren sax euh, Mouhamed Al Ghazawani bi nga xam te mooy seen président bees bi. Euh, yamul rek di yónni ambassadeur bi nga xamante ne moo fi nekk ren jii dafa dépêché ministre bi ak délégation bu forte démb rek maa ngi koy seetaan ci benn télévision. waaw waaw noonu la amee noonu la amee. tabaarakallah loolu dara loolu dara dàqul rafet na loolu wax dëgg yàlla. Euh, léegi nag euh, loo jàpp ne ren mooy thème bi. waaw thème ren bi dañoo bëgg a waxtaan ci résidence bi nga xam moom la ñu defoon waaw. fan yi nga xam ne nekkoon na ko fële ca Mbàkke Baari waaw fan yi nekkoon ci Jurbel ak yam fa nekk woon nag biir léegi ma ko doon def ndeysaan ndax nga bi ñu ko yóbboo Jurbel nga dégg mu naan ah, raama masir yi ilaa Jurbel la daal la sisin mm-hmm. waaye law aayanu maaraamu sayra maaraamu mm-hmm. kon xaw ma ci nu mu ko àggale daal law aayanu maanaam yóbbu na wala yóbbu nañ ma ci village résidence wala Diourbel mm-hmm. am na luñ ci jublu woon mm-hmm. waaye buñ xamoon la cay nekk ñoom lañ ca doon jublu ñu ko far def xam nga dañ ko fa yóbbu waaw teewul mun ay ministre wut ay yëf ñoo xam ne defal lañ ko fa kër mm-hmm. kër gu gën a rëy ci Diourbel ñu tudde ko kër gu mag waaw samp fa jumaa yar fa ay nit loolu ma def ko fa ci biir loo xam ne dañoo jàpp ne moom nekku ci fu euh, ñu ko fu ñu koy téye. parce que looloo tax ñu mer nag ne ko dañ ko yóbbu gànnaar. Ah. waaw parce que gànnaar comme dafa am ay borom xam-xam. waaw te naar dafa ñëw werante. ñu jàpp bu ñu ko fa yóbboo. Mhm. ñooñu danañ mën dañ mën a nëxal xam-xam waaw man cee werante ak moom ci xam-xam. parce que. bañ ko yóbboo foofu nag moom mu far jaaxal naar yooyee. waaw. ba naar ñoom tam léegi. werante wa ñan lieu loolu. ñenn ña daal di ne fi raw. wala yow mi fi man wala wala wala ak nga demee nekk yooyu. donc gaa yi daan jaaxle. kon ci nuñ koy def léegi buñ ko yóbboo fee. Hmm. Jurbel mu def lii. Hmm. ñu yóbbu ko Gànnaar mu def lii. Hmm. seen ko yóbbu kon Mbàkke Bàkk wala Ceytu. waaw waaye daal fi ñu ko fi yóbbu rek. mu def leneen yaa ngi dégg ba mu Euh, ba muy ba muy wax ca ca ca xasidam nga. waaw Sarsara. Mm-hmm, ni Sarsara ca Sarsara. Mm-hmm. ñu nga xam ne dañoo jógoon di ko fekk si Sarsara. Mm-hmm. ak lam leen ca defal ak fàkkuteef yam ca def. est-ce que mag ñi di fi jógee. di wal mburu di wal suguf. di yowutu yóbbal. ci di ko fekk xam nekk ca Sarsara. est-ce que est-ce que donc yooyu. thème boobu la ñu bëgg indi ren. allah. Euh, jox kenn ci professeur yi. mu traité la ko mbooloo mi. Mhm. su ko defee euh, ñi nga xam ne ñoo si ay sëriñ ñëpp ustaas ñoom yooyu. waaw ku ci nekk daal di cay sànni kàddoom ci thème mhm. boobu. Mhm. donte nag ni ma koy waxee saa nekk rek. waaw boo xasee ubbi tam ci sénégalais. waaw dafay bàyyi thème ba. dugg ci leneen sama boppam. commencé dugg ci mbooy gi. waaw moom moom <laughs> suñu sikk la. waaw suñu sikk la de. yàlla yërëm. <laughs> mais ustaas bi laaj bi ma la ci tegal mooy. Euh, nekkee Serigne Touba nga xam ne résidence surveillée la nekkoon nga xam ne amatu woon yenn liberté yi euh, waaye nag euh, xoolal système ak tëralin bi nga xam ne moom la ñu xottee kër kër gu mag ba tuddee kër gu mag nga xam ni amoon na tool xoolal jumaa ji ni mu toll te moom amuloon sañ-sañu génn amuloon sañ-sañu dem fenn waaye ndegam li mu réaliser nii ci ci résidence surveillée la ko mënoon est-ce que su amoon liberté kon du gënoon a takkarnaase. waaw loolu mooy firi asiru hmm. loolu mooy si xasida ak asiru ndaxte asiru mal abrari asiru mooy gis tubaab bi dafa defe ne bu bu tëjeeb sëriñ tëj na waaw ndekete ab sëriñ mu ne su koo tëj diiréet waaw ab sëriñ bu saalil mu ne su koo tëj ya yaakaar naa ko de boo ko tëjee moom dong ma nga ca dara waaw boo ko tege ci barab ma nga ca dara waaw boo ko boolee nit ñi ma nga ci dara. est ce que am ko tëj. fu mu dem ah. fu mu dem jàngale. dégg nga xuruurul wara xarra nasaara bi kay. allahu akbar. ah maanaam. mooy mooy workat bi nga xam ne mooy iblis. waaw moo wor tubaab bi. est moo defee ne bu ko defee si waa résidence boobu. waaw dana tax liggéeyam bi lu bu ko yóbboo Touba bu ko yóbboo kon Jurbel waaw bawal bawal yeeg tol mu ñangaan yeeg kur bu kur bi mën naa yàq li muy def waaw ko yóbboo gànnaar waaw naar ak seeni xam-xam mën naa def la def parce que ndekete foo ko fi mën di yóbbu rek moom liggéey bi day loolu mooy yëf yi oustaz Alioune <laughs> euh, macha allah jërëjëf jazaakumullah bala ma lay bàyyi xam naa benn laaj mooy teg mooy ñàkk complexe gi nga xamante ni nekk na ci moom ndax euh, nit ku nit ñuul ñaar daanaka ñu doon yàgg di minimiser di yàgg sous-estimer. maa nga lool ci ma gën a neex ci moom la bokk. est-ce que. Saalum ah. mooy sabar boo xam ne bi képp kum dal. Ah. bu yóbboo nga dem lal sab lal ci tëdd. doo réaliser dara doo dem fenn mm-hmm. soo ñëwee ci dëkk bii. waaw ñu ne la kenn ko xalaat. ba nga koy samp moom dong woon. allahu akbar. ak garab yi fekkoon ku ñuy wax mbéb. waaw. muy fanaan ca kër ak di fa yendu. allahu akbar. léegi ñun la tey dëkk boobu nag. Ah. mooy dixième capital. waaw. wala boog Dakar bu ko Dakar féet moo ci tege. Hmm. kon bu ñu lu ma téeméeri at jëm kaw. Ah. mbaa ko ndóoku Dakar ay yoon yoon. jort naa ko nag. loolu ñàkk complexe dong moo rek. nekk ci biir tubaab yi. waaw li ko wër day tubaab. xonq mu nekk ni ku ñuul ci seen biir. ci. di leen joxe nag yaa jumlatan. qad sallasoo bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw walid. seet teet teet teet. waaw di leen joxe naan tos kare ngeen. waay allahu akbar mooy jàmbaar mooy leen tos kare ngeen. waaw. yéen a sànku a réer. yéen ñi bëgg a wutal yàlla doom maa ngi wutal bàyyi. allahu akbar ñaar yu amul ci tuub waaw yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim ah. man lam yakun waladun lahu aw walid tey est-ce que radiallahu taala anhu radiallahu taala waaye loolu lépp li ko may mooy ñàkk complexe ñàkk complexe waaw da nekk gëm gëm rek masal ko jina hmm. baytum wa am salawa est-ce que wala si yujibu sawadul jismi safatul fata waaw tey der bu der bu ñuul hmm. du xel mu ñuul déedéet der bu ñuul taxul xel mu ñuul déedéet ñuul siiw te mën nga raw gaañ. gañ moo tax léegi yaa bu seen nga gis ku tubaab bi yar. waaw ñëw sukkal ku sëriñ bi waaw waaw. Sawtalin. waaw. président Macky mii ak maître Abdoulaye Wade mii. waaw. ban politicien nga defe ne moo la mënoon a joxante leen gisuma ko de. jeex na. mu àdduna wërngal këpp nag ba ca tubaab yi te kat bu Cheikh bu Cheikh Mountakha complexé woon. waaw. du leen tudd. mukk waaw waaw day wër wër wax ji rek. mais ñàkk complexe gi tax na. Mhm. mu xam ne sañ na ne kii joxal ci loxo. parce que. te dañu joxante loxo donc. waaw waaw. ba baax léegi joxante loxo ba léegi retombé yi ci amee. waaw. tax na ëpp naa ñàkk a def. allahu akbar. waaw lu rek la de oustaz Alioune. c'est wax nga dëgg ba àjjuma. comme mën a doon day ñëw maître at day ñëw na ci sàppi si. Mhm. président Macky day ñëw nekk sàppi waaw. ilimaan ji leen di jiite bu complexe wul waxal ñoom. maa wax lii. ci. waaw dégg naa dëgg de. jërëjëf. jërëjëf xam naa bu bu bu sooy dinaa du ñàkk ma des waat ci kanam. incha allah incha allah amul dara fekk gaa ñi ñëwaat incha allah. jërëjëf jërëjëf. jazakumullah jërëjëf. jaajëfal oustaz Alioune Sall bu baax a baax macha allah moom itam gis nga ni mu ñu ko ni ñu ko tënkalee. ak ni mu ñu ko jàngatalee macha allah am na solo lool dëgg yàlla am naa ci kam tudd ñu sëñ Mbacke Sylla moom tam sunu cousin sunu xarit boobu lay nga xamante ne moom tam moom yaram day daal di tàng xam naa boo demee day reer maa ngi koy jéem a woo boobu jotuma ko ko defee ñu jaay jëfal Oustaz Alioune Sall bu baax ci rafet wax ci rafet ji nga te ne wax na ko ak ñi nga xamante ne noonu la jànge mag ñi ak ñi nga xamante ne noonu la jàngate nee li ko gën a neex mooy ñakk complexe gi nga xamante ni Serigne Touba ñàkk na ko complexe ndax boo xool euh, bi muy dem gànnaar li taxoon ñu doon ko fa yóbbu moo doon ñu ruube ko ñu yóbbu ko foo xam ne dañ koy ruube ndax ku ne xam na ne njàngum araab moom li ci ëpp yëpp ay werante la boo xoolee suñu penc mi ni kur koo jóg doonub imaam ku jóg doonub ustaas ku ne di ubbee ku ne di ku ne di contre sa morom ku ne di raddu sa moroom dèjà mooy fi yóbbu ñi euh, gis nga weeru koor mënuñu ci ànd weeru tabaski mënuñu ci ànd tabaski noonu moom daal suñu weeri bopp yi ci lañuy ci la ñuy ànd nga xamante ne kenn weer waaye lépp lu ñu yàlla booleel moom ñu bokk moom coow laa ngi ne kur ñu jël ko nag yóbbu ko gànnaar pour ruube ko waaye ñàkk complexe ndax itam wax na ko ci biir xasida Masaalikul Jinaan bi bu leen defee ni ku ñuul ku nekk rek sama xel daa war a ñuul der bu ñuul tekkiwul sama xel daa war a ñuul wala foo dem rek da nga war a toog ci suuf ni gàpp rek ñu lay yónnee que sant mission ka defi mbir nga taxaw nga defe ni yow warloo bokk ci ñi nga xamante ni ay dañoo war a tedd te wala xadd këram naa bani aadama yàlla moo teral doomu adama taxawaay bu rëy ba mu fa taxaw muy ba mu ko jëflante ak ñoom it wan leen lu leer nañ lu mel ne mbir yi ñoom itam ñu daw topp ko kon sëñ Tuubaa radiyallaahu taala yàlla nañu yàlla gërëmal ñu ko bég nañu trop trop trop trop ci buñ ko dee jàngat dañu yëg ni am na nañu mag mu baax yëg ni am nañu ab sénégalais vrai sénégalais ba mu daaneel nag ci sëñ Muntaxa mii suñu mbokk politiciens yi toll woon nañ foo xamante ne juróom-ñaari ati conflit yoo xamante ne am makki sàll indi Macky Sall am Khalifa Sall indi Karim Wade jàppal bàyyil coow leen a ki kii ngànk fii tuuma wax ju nekk digg nañu ko waaye benn benn magu daara menn magum daara muy sëñ Mountakha yàlla mi dara tawul yëpp nga ko jaaral ci moom ci koo xamante ne campagne kenn gisu ko muy bind lettre ak defi not kenn gisu ko muy dem fenn occasion bu ndaw rek la yee joxante leen loxo ànd leen ndax seenu ànd mooy jëriñ réew mi waaye seenu tàqali ko jo jëriñul réew mi lu mën a xew rek joxante leen loxo loolu dafa am solo loolu c'est très important loolu moom la sëñ Abdoul Aziz Amine dama defoon ci diggante Idrissa Seck maître Abdoulaye Wade mu gënee dang ba gën a dang moo ko jëli ànd ci ak ci ndigul sëñ Saliou Mbacké ba tey lépp daroon donc El Hadj Abdoul Aziz da baax mi nga xam kenn du ko fàtte diggante étudiants yi diggante politiciens yi opposition bi foofu ay musa tàkk daara ji moo koy defar kon nag nanu gore te fonkaat daara yi nanu fonkaat nit yi daara yi te xam ni réew bu fa daara doxul dara du fa dox kon nag jërë ngeen jëf ca kanam tuuti rek isa la ñëw ci li nga xamante ni moom lañuy ñuy te mooy spécial guddik màggal la Sud FM Sud FM ngeen jëf waa xisbu tarqiya ci am daax yu am solo yooyu nga xamante ne moom ngeen di béggeelante ak ñun ñu ngi xaar rek ci kam tuuti sëñ Mbàkke si la xam ne ñàkkul ni moom tam boo demee day xéewlu rek kon Mbàkke boo fekkente ne rek yaa ngi dégg wala am ku la jege kuy dégg suñu wax rek xam ne ñu ngi lay xaar ci li nga xamante ni moom la ñu lay kon nag euh, ca kanam tuuti rek ñëw comme ni ñu ko waxee léegi waaye ñu gën a doolee góorgóorlu euh, taalibe yi nga xamante ni ñu nga fa ñu doolee góorgóorlu ndax Euh, sëriñ Moustapha si al Moustarchidine yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér daaw na wax nii ku sa kilifa di naaw ni picc mel ni njanaaw ci ci ci ci jaww ji yow ngay raam ni mbëtt gëmu mu ni di ngay mën a ànd wax joo xamante ne wax ju riche la wax ju cher la joo xamante ju fort la kooku sëñ Moustapha Sy euh, moom moo ko moo ko wax ko wax tabaarkalla waaye loolu mooy dëgg ndax ku sa kilifa baaxee nii euh, ku sa kilifa baaxee ni sëriñ tubaa rafet jikko ni sëñ tubaa baaxe noonu lewet noonu bari yërmande noonu nga jokk ci moom ànd ak moom am na kàddu yu jekkatul ci sa gémmiñ am na comportement yu jekkatul ci sa gémmiñ sëñ tubaa jëmmi yërmande la sëñ tubaa ku yaatu ndab la ku yaatu loxol la ku yaatu lu mu bàddi la kon bu ko kenn wutal ay noon bu ko kenn dàqal kenn bu ko kenn rëddal walla nga jéem koo xatal amul benn xol boo xamante ne toq liimaan ma nga ci yow nga dégg sëriñ tubaa te amoo ci moomu cofeel amul ku ko bañ ci li ma yaakaar amul ku ko bañ amul ku ko bu kenn neemee ku ko bañ ndax bañ ko baax moom sa xoola cay jeex rek waaye du te yàlla di ko di ko bàddil moog iñaan a yam jikko yëpp jikko yi ci ëpp kóllëre mooy jikko ki ñaan ndax iñaan moom li tax moom kóllëre mooy balaa faagagal kenn yow lay jëkk a ba pare balaa rey kenn wala mu lor kenn yow lay jëkk ba pare moo tax moom kóllëre moo tax kon jarul ki jarul soxor nañu yaatal géew bi ñëpp bokk ci sëñ Tuubaa radiyallaahu taala ku baax la euh, jumaa ji nga xamante ni moom lañ def fii muy jumaay Masaalikul Jinaan tey kooku centre de retrouvaille la war a doon centre de retrouvaille nga xamante ni tey dootuñu ñàkk am fu jul ci mën a daje ndax barab la boo xamante ni def nañ fa plus de vingt milliards ñu def ko fa mu rafet lool kon tey euh, place retrouvaille yi war nañ ko ñàkk ci kaw nag ñu xam ni lii pour jullit yépp la ci kaw ñu xam ni ñépp a far daje ku wax ashhadu doon laa ilaaha illa rek la ñu soxla waaye bu am na yenn yoo xamante ne bu ñu ko xasee def rek daal ñu échec te iblis ñu échec rek la bëgg iblis bëggul lu baax baaxul ànd la ko baax lu yiif rafet rafet mu ngi xool nu mu ci xëppe suuf mu ngi xool nu mu ci nu mu koy xajamale nu mu xool nu muy nu muy séddalee difficile pour mieux régner kon nanu fexe ba nii nu yàlla boole ñu bëggante tiijaan murit laayeen comme màggal gi ni mu mel nga xam te tey ñëpp nga fa ngir bëggee ak honoré Serigne Touba loolu nan fexe ba jumaa Masaalikul Jinaan bi gën a mel noonu ñu ubbi bunt yëpp ñu seet ni jullit rekk am solo jullit dong am solo lu ñu bëgg waxtaana ñu waxtaana ko fa lu ñu bëgg a def ñu def ko fa loolu nu moo gën incha allah jërë ngeen jëf kon ca kanam tuuti rek ma àndaat ak yéen làmbaat suma waa ji ba xam ndax dinaa ko jotam ndéet su ma ko mën a jot ñi ma xool ba xam kon la ñu mën a jot foofu incha allah ولي قال ربي خير زيد عن الحسنى عني قبل رؤية فكرت له عبدا خديما لذي الأسنان صدقا tarqiya xam naa kon ci kanam tu rek dañu jéem làmb rek ndax mbugale <laughs> ñu jéem a jot suñu mbokk yi nga xam ne ñu nga fa Moustapha Dieng ñoom ah, tuuti sëy comme naa ah, comme guddi gi xaw na yaatu te foofu moom mm, tey lañu ñu jagleel diine ji foofu Oustaz Alioune Sall boobu léegi moom déglu ngeen ñu mbaa kenn xam naa ne moom ba léegi jotuguñu ko kon nag du ñàkk eh, ci kanam rek ñu gën a insinué ndax xam nga foofu tamit dafay xaw a xat te itam eh, eh, rajo yi dafay foor ñaare boo sa bu la sa portable soree rek mën na am doo dégg ki lay woo kon xam naa bu fekkee dugg na ba installé rek dinañ ko jéem a làmbaat incha allah ñu ñëw ci jéem a commentaire bis bi wala ba guddi gi nga xamante ne dañ koy waajal ndax fi mu toll nii tey ñu ngi waajal guddi gi ndax at mu jot dafa am benn thème boo xamante ni waa Rawdu Rayaahiin ñoo koy tànn ndax doomi soxna yi nga xamante ñoo nekk ci réew mi ëttu daara yi fu may mën a nekk. di nga yebal sa ndaw mu dem ndokkeel sëriñ tax Mbàkke ci bis bi ndokkeel njaboot sañ Tuubaa gi yëpp xëy na comme moom mooy moo nekk ci bopp bi waaye même yeneen kër yi sax kóllëre yi dañ fay nekk euh, xëy na bu ñu mënta egg sax ci raw doyaay xam ma la bëgg wax rek ni la bis bi du rekk nekk ko moom ñëpp ko bokk ku nekk da nga fay dem yóbbu sa participation yóbbu sa contribution yóbbu turu kilifa ga nga xamante ne moo la yebal bu ñu waxtaanee nag ba ay boori quatre heures du matin wala trois heures du matin ñu door nag jël thème boobu ñu doon waxtaanee nag séddale ko doomi soxna yi nga xam ne ñoo fa nekk ñii di ay waa Mauritanie ñii di waa sénégalais ñii di waa Gambie ñii di waa Guinée Conakry partout ba ci suñu mbokk italiens yi daa daaw nañ leen interviewé ñi nga xamante ne ay naar euh, tubaab yi xonq cur la ñu làkk italien dinañ leen daawoon ñu leen interviewé. pour wax la dañ liggéey sëñ Ba jéggi na frontière nga xamante ni ba Amérique gis nga ay américains yu xonq tur di làkk wolof euh, sol ay njaxas ñi nekki Baay Faal ñi nekki murit ñi di jàngee xasida loolu day wane rek ne l'islam doole ji mu nara a amee ca kanam bu gisee nooram yi gën a tiit loolu rek la kon ñun loolu mooy raw du reexañ incha allah ñu nga cee ñu nga cee ñu nga cee ñëw waaye sànq bi may daaneel samay kàddu dafa am lu ma doon wax ci euh, Serigne Touba radiyallahu taala anhu ci ñaan ji nga xamante ne doon na ko ñaan boromam subhaanahu wa taala kon nag euh, moom daa mel ni am na ku may woo naa jaajëfal ko bu baax a baax a baax yéen yàlla defal ko xéewal sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu lu nekk waxal na ko borom bi subhaanahu wa taala kon nag euh, bi muy daaneel sànq lu wax ni mu ngi wax ci wax ni asbil sa tuur yi asbil sa tuur yi yàlla nga wàcce euh, mbalaanum sutura taraangay sutura kiiraayul sutura aslih umuur yi nga wàcceel ñu ak yiwénoo ci suñuy mbir na suñu mbir yëpp yiwén na nooy nepp na yomb lool na jege lool kasir xuyuur yi na bari ba ni gàññi waaw na bari ba ñu gàññi ci réew mi réewum senegal ak ci askan wi di askanu Sénégal bilaa ki daay yàlla mu ànd ak benn jafeñ-jafeñ yàlla bu ci benn xat-xat am yàlla bu ci benn euh, dëgër dëgër am yow mi nga xamante ni yaa yaa wax ni ku ma woo ma wuyu la li sax ki dem ko la woo kon nag xabli ijaaba may nu ak wuyu wuyuñu lii bokk nañ ci li bëgg ci barke borom drapo ba nga xam ni mooy borom liwaarul xamdi mooy Moustapha sallallahu alayhi nga xam ni moom ëllëg yomal xiyaam mooy yor drapeau bi nga xamante ni mooy liwaal xamdi jiitu ful bi topp ci ñu jëm àjjana ci barkeeb kooku laa lay ñaan yaa dal jamaali yow mi nga xam yaay borom taar yaasal jalaal yi nga xam ne yaay jalaal jamaal ak jalaal léeg boo ko dee firi da nga naan jalaal wala jamaal boo fekkee nit ki nekk jàmm donkaase gi xéewal am mu naat verdure yi jàmm ne am kooku xamal ni jamaal la jalaal nag boo fekkee nit ki di jooy mbaa jamono dañ am dangay xam ne kooku jalaal jamaal la moo moom ñaari yëpp bu ko ci neex yàlla moo moom ñaari rido yooyu ko neexee mu taw bu ko neexee mu naaj bu ko neexee mu sedd bu ko neexee mu tàng bu ko neexee mu nga am bu neexee nga ñàkk kooku mooy jalal ak jamaan yaa xayra waali yow mi nga xamante ne yaay gën gi méngoo yow mi nga xamante ne ku jëm ci yow jàpp na ku la ngooy ngooy na lu dëgër ku la wan ginnaaw perte na saffiluhaa yi orientel bala sëmbartalal wala jubbantil samay may dolli samay may tegaleel ma ko tegaleel ma samay paan tegaleel ma samay beñewaar yaasal waxuudi yow mi nga xam yaay borom euh, nekk ment yi lépp luy dund yaa sal wujud yi nga xam ne yaay borom mbindee fi kon lii bi sa tab gi nga xamante ne da nga tabe ba koo jox dootul jeexal yàlla nga nu jox ci sa tab gi bilenti haay ba dootuñu jeexal dara safi wusuuli ñoŋalal suñu yoon bu ko kenn yàq yoon wi kat mooy lislaam sëñ Tuubaa amulub tariq yoon la am mooy lislaam lislaam la fi indi indi mu jaddidu dafa wax ni man moom dafa moom moom mooy ahmadu moom dafa ñëw pour yeesal li fi nekk waaye ñëwul pour ber ab tariqa mbala ber benn groupe rek di ca wax mu ne mu ni yàlla nga sàmm suñu yoon wii di lislaam bu ca dara yàqu suñu diine ak suñu ngor yàlla bu ci dara xajam bilaa xufuuli yàlla bu mu damm lii jut bi suuli may nu ak egsi ci yow jàmmee ridaa yi te nga rafetal suñuy boor rafetal suñuy mbir rafetal suñu environnement xab li tilaawa te nga may num njàng ma al ak bànneexum njàng xabli diraaya nga may nu njàng ma jàng ak liir ak yër du benn nen lu ci nag nga may ñu ko la dal adaa yi te nga may nu ñu man di ko jooxe su ma jàngee ba xam nga may ñoo may nu di ko jooxe aslaxta xaal yi yëwee dalal suñuy mbir bilarti xaal yi yàlla bu jafe-jafeñ am bi di iyaal yi nga jubbanti sunu njaboot bilaa bukkaay yàlla buñ fi nekk di ŋaayoo ko xiir xiiroo ko ŋaay ŋaayroo léq bal mataa bii nangul suñu tuub wax mi janaa bii te nga aaral ñu suñu njaboot aaral ñu suñu biir ak suñu biti wasun maa bii te nga ñoŋalal ñu suñu tàppuwaay jawit zakkaay yi te nga may nu xel mu ñaw muñ la mën a ñaane te buñ la ñaanee nga may nu sëñ tubaa nee na xinil yàlla nga nu fegal iblis wamhul xaruura te nga fegal ñu ak waru yàlla bu nu waru xabli nusuraa yàlla nga nu may ndimbal ci biir ak ci biti ma aj tikkaay yi ànd ak Pastef ak jokk taxawaay xut nawaala nga womantal nu ay may yu dul jeex yéen mi kamaala te nga dottil ñu ba mu mat sëkk yaa man taala yow bi nga xam ne yaa tiim ñëpp yaa kawe ñëpp an suraka yi walef ñu lay bokkaale bokkoo kenn sa nguur gi bokkoo kenn sa sañ bi yow képp kott dong nga zitta hadaya yàlla nga ñu may ak njub xutta hadaya te nga orienté ñu lii bi ridaaya yàlla nga nu boole ci sa ñi nga bég ñi nga kontaan ñoom ba ñu bég du nastikaay yàlla mu fi nekk di def defle yàlla mu fi nekk di hésité ka ragal yaa xayra mux ni yomi yaa woomal ba koo jox kenn dootu ko werante ak naa bi man nii woomalal ñu sa kéewal yi alayhi usni man yow rek lay tagg bilaa xafa bilaa xafaay bilaa xalaa yi te duma la dendaleeg leneen laka shukuri laka shukuri inda duyuri yaasal qusuuri bila jalaayi sant naa la sama cant yow rek laa koy jëmale sama ngërëm yow rek laa koy jëmale inda duyóor yi ca kër yaag ca àll ba fu mën a nekk yow rek laay sant ma wéet ak ma wéetali ko yaa dal xusuur yow mi yaay borom ngénn yi li fi nekk yow la bilaa jalaa yi yow mi nga xamante ni kenn du la wetteeg leneen yaa man kasaani yow mi xam te ne yaa ma aar yaa ma wodd yaa ma sàng yaa man saqaani yow mi xam te yaa ma nàndal yaa yor sama nàndal yaa yor sama lekk yaa man sama naan yaa man xamaan yow mi xam yaa may aar anil xalaay ci su ma wéeteeg su ma wéetali ko anta muraadi yow rek laa bëgg yow rek laa sopp anta imaadi yaay sama wéeruwaay ci biir ak ci biti nawir fuaadi leeralal sama xol yaa sa yaay yow mi ak leer zë zë ta ayib wuññil ma sama ayib ashabta ray bii dindil ma samay njàq-njàq ak sama iste taxarta jay bii laabala sama biir ak sama biti kalas fiya ba ma mel na gaañu jëkk ña fi nekkoon an xayta sayri te nga doytaral sama dox te yetta may rii te nga leeral te laabal samay may kon lii bi xayrii dugalal ma sa yiw wi kalat xiyaa yi ba ma mel na gaa ñu jëkk ñi nga xam ne dañoo texe ba nga gërëm leen boole ñu ci ñooñu yaa xayra wax yi yow nga xamante ni képp kuy dund ci ak sa loxo boobu lay dunde kun lii biir yi yàlla boole sa càmmateef yàlla naa bokk ci jur gi sàmm yàlla naa bokk te yàlla ku mu sàmm doo réer doo sànku te gaynde till du am ci yow aw yoon loolu jëlaw talaanu kon kooku mooy sëñ Tuubaa li mu jot ñam rek ci eh, muwaahibu bi naafia nga xam ni li Alaaji Abdu Asiis daaw naan sëriñ Tuubaa li mu wax rasulullahi ba mu jox ko ko eh, géwél bu ko wax sab sang mu jox la boppam te yàlla nee na dee leen ma tudd ci mbir yi laa tudd leen ma ma tudd leen uskuru ni askurkum ud'uuni astajib lakum waaw eh, uskuru ni wala takfuru ni kon yàlla neen tudd leen ma kon tudd gi sëñ Tuubaa di tudd suñu borom subhaanahu wa bokk nañ ci li ko may li mu am te ko boo ragalee yàlla yépp ragal la boo bëggee yàlla yu baax yépp bëgg la yu boj ni bañ la kon wa taqula yuallimukumullah kooku mooy sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ala dibaqin saada ruuhi wa jismaani مع السلام بلا انتهاء jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf allo sëñ Mbacke. non non may dem nii de. allo sëñ Mbacke. allo. allo. allo waaw allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Alaaji xanaa nga doon reer. waaw ah, am na lu ma doon laal de xaw ma reer laal ma <laughs> ci. man dem naa ba bu woo Oustaz sax ci suñu ko waa Mbacke moom. waaw gars yi gars yi mujj nañu yàgg ne ma Oustaz Mbaye ngi lay wër ci dëkk bi yëpp man leen maa ngi Touba. moom kay fu ne wër naa la wala. <laughs> booba de booba de maa ngi Touba Oustaz nga xam nga màggal gi moom at mu day gën a ala daw mi rek. waaw moom de daa mel ne su guddi gi nag commencé naa dengoon. waaw guddi moom bu guddee nii xamal guddi na rek. <laughs> waaw commencé nañu waaw moom comprendre naa la léegi. léegi léegi léegi euh, gars yi commencé ñu commencé samp sàppe yi. waaw. Euh, waa waa day euh, waa Daymaan ak waa Sarsara. ak ëttu këru diine yi ak nga xamante ne ñooy waa Mbàkke ak Mbusobe ak ñi nga xamante ne ñooy waa Rawdu Rayaahin fi ne tànn seen nit ki nga xamante ne moo war a fas yéeneen traité thème bi dugal ma foofu incha allah. waaw. allo. waaw allo waaw. waaw waaw Oustaz Mbaye baal ma damaa am maa ngi lay dégg maa waaw dama ni. waaw. waaw fi mu nekk nii tey boo xoolee mbir yu commencé na dangoot. waaw waa Ray du Rayaxin mi nga xam te ne ñoom la ñuy jox mbirum organisation guddik màggal gi. tey boo xoolee tey waa daymaan yi ak naar yi nga xam ne ñu ngi bàyyi ko sar saara suñu mbokki murtani yi baax yi nga xamante ni xam-xam daf leen ñor mbaax daf leen a ñor dañu bëgg lu baax lool te bëgg te bëgg waaju baax. tey boo demee ñu ngi commencé installé wu nga xool waa Mbacke Mbacke Moussa Moussa Moussa Baye ak ñi nga xamante ne ñooy këru diina yi nga xamante ne ñoo yebal seen i njaboot ñu ñëw fa yéene ànd ak njaboot Sëñ Tuubaa màggale la ko bisam bi. fi mu toll nii tey nan naka la place bi mel ndax xamoon nañ fa miin maa yow. Euh, noo gisee bis bi ak euh, fan la ñu fi tolloon di. dëgg jërëjëf di nuyu auditeurs yi ci FM seen rajo yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew. Mm-hmm. di nuyu équipe bi nga xam ne moom lañ àndal ñëw fii ci Touba ci jiital Oustaz Alioune Sall Alioune Badara Socé mm-hmm. am di Moustapha Dieng soxna Ndeye Khady Diop fekk ci Adja Tuuti Sey ak sëñ Adama Ndiaye. Mm-hmm. ak euh, mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ci fekk ñëpp ci ay euh, nu mu tuddati. Mm-hmm. ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen nuyu di bëgg lool itam ci tas mbay ci taxawaay bi mm-hmm. di bëgg lool itam ci yitte ji ak liggéey beeg ñi nga xamante ne noonu ngeen ko doon womate boobaak léegi eh, xam naa nag eh, ni nga ko waxee eh, màggalu Touba ci guddi gi mm-hmm. màggalu Touba ci guddi gi dañoo baaxoo di amal waxtaan waxtaan woo xamante ne nii xam nga Oustaz Alioune hmm. euh, dundu yaram moom ak lekk lay doon hmm. euh, dundu xel xam-xam lay doon hmm. waaye nag dundu ruu jaamu yàlla lay doon màggal gi bu fekkoon ne dañuy woo nit ñi rek ñu jox leen aw ñam ñu lekk ba suur dem ñibbi am na ñoo xam ne bu boobaa mën na ñoo bañ a ñëw waaye nag waxtaan yi ñu fiy waxtaane muy waxtaanu xam-xam yi waxtaan yi ñu fiy waxtaane muy euh, delluwaat rafetal mbokk gi ci këru diine yi dafa am solo lool loolu moo tax daayira bi nga xam ne mooy Rawdu Rayaahiin ci njiital Cheikh Ahmad Badawi moom Cheikh Mouhamadul Fadal Euh, di taxawee taxawaay bu am solo boobu Serigne Saliou rahmatullahi alayhi dénkoon leen ko ñu di ko taxawee taxawaay bu am tolo boobu tey jii ci bëccëg bi def nañ benn table ronde ci yor-yor ay boori 10 heures euh, boo xamante ne mi ngi jëmoon ci euh, suñu mag ñi ni nga xamante ne nii noonu la ñu nekk woon ay citoyen waaye noonu lañ doon dundale li nga xam ne mooy seenum réew ak seen diggante yi nga xam ne moo ci aju. table ronde boobu mën na maa wax ne borom xam yi ne ci réew mi ñu baree bari ak këri diine yi daje nañ fa waxtaane ko loolu rek doon loo xam ne dafa rafet. beneen bi ci def léegi nii bi nga may wër te gisa góoma hmm. euh, Serigne Bass Abdou Khadre mi ngi doon dalal ñi nga xamante ne ni ñooy borom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci kër diine yi doon leen dalal ci biir résidence Cheikhoul Khadim ni mu ko baaxoo defee ci jamono nag ci la waa bi waat conférence bu mag bi nga xam ne loolu ñu amal ci guddik màggal gi war cee daje nag ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci këru diine yi war cee daje kilifa yi nga xam ne ñoo màggal fi waaye euh, ñi nga xamante ne ay boromi xam-xam lañ hmm. ñu toog indi benn tem introduire thème bi buñ noppee bi euh, li nga xamante ne nii mooy débat bi hmm. euh, mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñëw ak nit diine yi ñu jox këru diine gu ne kàddu mu hmm. yëkkati ay kàddu joxe ko ren nag euh, ni ma la ko waxee woon ci yoor-yoor thème bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane ci dëkk bi ndax xam nga ne at mën a jàll di daaw jéeg dañoo waxtaane woon tukki sëriñ bi mu tukki woon ci géej gi hmm. maanaam xaybatul bahriya ginnaaw bi mu ñëwee ñu doon waxtaane li nga xamante ne mooy tukki bi woon ci jéeri ji maanaam doxantu bi mu bi mu ñëwee demoon na gànnaar waaye ak euh, jaar ci ay dëkk yu bari. Mhm. bi mu jógee ci lool nag ñu njaareem mi def ko résidence surveillée lu mat fukki at ak juróom gannaaw ba mu jógee ci leen jolof mhm. wala fukki at ak juróom yu teg tuuti ci yenn nekk lii waaye fukki at ak juróom yi moo gën a siiw mhm. euh, résidence surveillée boobu moom la ñu war a waxtaane tey muy xaamaal jabariya boobu nga xamante ne moom lañ defoon sëriñ bi foofu nga xamante ne njaareem ci maam yi est-ce que loolu am na solo loolu wax du yàlla tey jar na waxtaanee ndax itam li ma ci maa ngi ko maa ngi laaj léegi ni ko koo ne dañ dañ la téye mat 15 ans fukki at juróom yi mat. Euh, sëñ Mbacke. <laughs> waaw koo koo xam ne la koo xam ne laa téye 15 ans tey du téye nga nga liggéey li nga liggéey wala boog nga joxee sa sa mébét maanaam nga xam ni. joxe nga benn palan bu fekkoon ne tey joxe nga palan ndax boo xoolee ah. kër gu mag foofu ci Touba ni nga xamante ne noonu la noonu la ko rëddee ak ñi nga xamante nii am na nit ñoo daf leen doon former ci biir ci ci biir mu génn ah. àdduna daanaka dëkk boobu di Touba mën naa li wax na li mu fa julli bariwul jumaa jooju nga xam ne mu bokk na jumaa ji gën a rëy ci Afrique sooy jant ah, ah. Euh, daanaka boo fa mosee jullit xam naa ñaar lay doon la benn lay doon da nga mos na ko def euh, nga nga bàyyi koo xamante ne bi nga koy bàyyi mi ngi am 40 ans daanaka di door a nàcc rek bu doon am yonente xëy na peut-être day door a jot mu mu réaliser loo xamante ni sa ginnaaw tey boo dellusiwaatoon di nga ko ni gàcc ngaalaama. yaakaar naa ne kon bu fekkoon amoon na liberté ci ca bañ ko koy def kon kon dina gën a xumb. Mm-hmm. mu ngoog. na solo Oustaz wax noonu mooy début gi loolu itam mooy li nga xam ne wér la mm. euh, ndax euh, jumaa ji nga xamante ne mooy jumaa njaareem ni ko waxee sëriñ bi moo ko tabax lu ak dundam taxawu ko itam ba noppi mag ñi sax dañuy wax ne julli na fa ñaari it kon dund naa ak jumaa ji ñaari at. Mm-hmm. Euh, loolu nekk taxawaay bu am solo. Mm-hmm. mu joxoñoon jumaa jii ngay tudd di jumaay Touba. Mm-hmm. ba dajale woon sax lenn ci ay koppar yoo xam ne waroon na fee ñëw. ba demandé li nga xam ne mooy autorisation wu euh, liggéey ko waaye nag ni nga ko waxee xalifaam bu mag ba. di Cheikh Moustapha Al Karim mi nga xamante ne. Euh, képp koo xamante ne rek am murit nga wala képp koo xam ne ak jullit nga ameel nga ko njukkal ci taxawaay bu rëy boobu nga xamante ne moom la amoon ci liggéey bi moom la amoon ci. Euh, taxawu li nga moom la fi waaye juróom boo bàyyi woon. Mhm. te xam nga ne bi ci sëriñ bi di jógee ñeent fukki at la am waaye nag euh, ñeent at maanaam at yooyu dafa am taarix loolu ci lislaam ndax yonent yàlla Muhammad ba muy jógee ci xunti ma. Mhm. ñëw naa waa màkk yàllaa ma yónni booba ñeent fukki at la am. waaye yonent yàlla ay bi doon ci mission. bu nga xam na ne amul sax ñeent fukki at bi mission wam di jeex kon day tegtale ne at yi naa néew mhm. waaye yitte ji mën naa bari loolu mooy taxawaayu sëriñ bi ci doomam yooyu Cheikh Moustapha bi Euh, Oustaz Alioune tubaab bi ku mas di léwtool wala muy xeex ak yow. Hmm? soo faatoo sa mission jeex na. Hmm. dégguñu fi kenn koo xam ne tubaab bi dafa songoo ak moom. Hmm? nekk ak moom ba kooka faatu ñu ne doomam dafa continuer mission ba doxal ko ba tey jii mu agsi fii mu agsi. xaw ma lu sëriñ bi yéene woon. waaye li mu doon ñaan lu baree bari ku ñëw fii tey da nga gis ne réalisation yooyu am na. dëkkam bii mu yàgg bëgg ba doon ñaan borom bi mu defal ko ko am na. waaye euh, euh, am aw yoon. boo xamante ne da ciy taxaw mu nekk mën hëjëm mu nekk loo xamante ne daf ciy yar. aw nit. Hmm. mu nekk loo xamante ne nii euh, maanaam système de vie lay doon. Hmm. boo xamante ne day participer ci développement réew mi ndax Serigne Touba noonu la mas di doxee. Hmm. day participer itam ci culture réew mi ndax Serigne Touba noonu la mas di doxee. day participer itam ci njàngaleem réew mi ndax Serigne bi noonu la mas a doxe ba doon bind ay téere di jëm ci wàllu jàngale. waaye day jëm ci wàllu jaamu yàlla ndax noonu la mas a doxee. xam nga ne ba mu nekkee Gabon. sampoon na ay bant def ko mu nekk jàkka joo xamante ne da koo taxawal ngir jaamu ci boromam subhaanahu wa taala hmm. am na benn bi sax tubaab bi dafa ñëw guddi bant yi sànni ko hmm. wan ko ne ko fii mënoo fee jaamu yàlla waaye am na keneen ku taxawoon ca wetam ne nañ yelli sëy la ci yenn taarix yi hmm. di xuloo ak moom ci di ko wax naan ko euh, di xuloo ak moom ci di ko wax euh, mu ko samp am na ci droit fi ko samp amu ci droit nangam nangam ñu lakkante wax seen i wax loolu lépp li muy firndeel mooy taxawaay yoo xam ne sëñ bi amoon na ko euh, nan laa def kon ma continuer. waaw wax ma jàddal ma jàdd. wa waaw Oustaz Mbaye maa ngi jégalu ni moom diwaan kàlla sëñ Mbacke xam naa ni. allo xataa yaa ngi fam solo. waaw maa ngi jéeg lu baax maa ngi woon ko am solo dama koo booleeg ay tuuti tuuti ay yëf rek <laughs> waaye oustaz Mbaye lu am solo li ma lay wax noonu mhm. mooy foofee ca gamoo kon fa la naale woon li nga xamante ne ni mooy ak jaamu yàlla fa la naale woon li nga xamante ne ni kon mooy mbirum jàkka waaye loola dafa mel ne euh, gis nga euh, yitte ji nga xamante ne moom la ci amoon. Hmm. li ma bëgg a wax nag mooy résultat yooyu am tey jii ba mu toll fii. Hmm. jabootam googu mooy ñi nga xam ne ñoo ko tàmbali mooy ñi nga xam ne ñoo ko woo mag ñoo indi loolu. Hmm. ci jamonoy sëriñ bi bis bii di màggal ñuy ñëw màggal si ñii moom amul woon. waaye li amoon ndax booba context bi laaju ko woon nag Oustaz Mbaye. ndax xam nga ne bi mu nekkee njaaram nekkuloon ci liberté am ci niñ ko mën a tuddee ndax résidence surveillée la nekkoon waaye woo la leen képp koo xam ne lii ma am Eh, sa mbég la eh, te yéene nga ma ko maa ngi lay ñaan bu bis bii dellu seetee di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nga sant le ma borom bi subhaanahu wa taala mag ñi taxaw taxawaay boobu di ko ci sant le boromam subhaanahu wa taala loolu di dox di dox di dox di dox di dox ba mu bàyyi koo fi eh, waaye ci xilaaf ak Serigne Fallou ni nga ni ma ko baaxoo waxee at mu jot. Mm-hmm. waxtu wi ci la woote nag li nga xam ne mooy màggal gi ndax moom. dafa wax ne lépp lu ñu defal Serigne Touba defal ko ci dëkkam bi di Touba moo ci gën a yey te loolu itam nekk politique bu am solo ndax mm. booba dëkk bi taxaw na jumaa gi taxaw na nit ñaa ngi fi am na yuñ si mën a jànge yoo xam ne ku ñëw tey dem sële ci résidence Cheikhoul Khadim euh, ñëw fii nga xamante ne mooy euh, résidence bii janoo ak jumaa ji dañ mm. nekk si nii di waajal conférence bi nga xamante ne nii mooy bu raw rayaxin bi ñu organiser nga toog ñun la délégation bi ñoo bàyyi koo Tiwaawoon ne mm. la bi moo bàyyi koo ne la délégation bi ñoo bàyyi koo jaamal hmm. délégation bi ñoo bàyyi koo dakaar ca euh, euh, ca waa kër maam li limaamu hmm. délégation bi ñoo bàyyi woo cana ñoo bàyyi koo canaba hmm. ca Cheikh Ahmad Tidiane Seck délégation yi yëpp ñëw daje Oustaz Mbaye dama naan bu du woon màggal bis bu toll noonu rek réew mi waroon nañoo réunion wut bis bu mel noonu boo xam ne ñëpp danañ daje ñu waxtaane liñ bokk waxtaane liñ séq muy diini ji kon daje waat ko ci bisu màggal aw yiwu réy la euh, jërëjëf sëñ Mbaye xam naa c'est très important fi nga mais notre oustaz la préféré oustaz Adama Ndione. waaw <laughs> dafa ñëw ak ay kayitam te xam naa xam nga Adama Ndione moom. Euh, ci ci sa moom de li koy wax loo moom farata la. <laughs> Adama farata lay wax rek bu jeexalee no <laughs> waa waa baax na maa ngi bu jeexee rek gaawal ñëw dégg nga. waaw jekkandiku lii moom kay yow laay xalaat. waaw damaa ne ci forme te damay bañ mu wàcc ñëwal rek. jeex na moom kay comprendre naa la. ñëwal léegi. mais mais mais mais nag wa WhatsApp ma WhatsApp ma affaire yi WhatsApp ma ko. jeex na dama lay wax tam lépp. <laughs> Pape Laye gi lay nuyu Pape Laye gi lay nuyu Pape Laye Dieye. Eh, waaw nuyul ma Pape Laye sama mu ngoog. <laughs> nuyul ma sëñ ak technicien yëpp macha allah. <laughs> merci beaucoup ak Diop Diop. ak Diop borom ataaya ju neex ji. mu ngoog jërëjëf <laughs> jërëjëf sëñ Mbacke merci beaucoup jërëjëf sëñ Mbacke si la ñu sant ko baax gërëm ko moom ngi foofu ci Touba moom fa nekkal xam naa kon dañuy bàyyi notre ami Adama Ndione mu tënkal ñu xabaar yi Pape Laye itam ngi noonu tabaraka moom tamit day sëqal rek moom tamit ma xalaat célibataire dafa metti kon donc Pape Laye ñu nuyu ko bu baax. incha allah Ibra Seye moom moo nekk ci kii bi yàgg naa ne moom mooy yóbbu gaañi kon su ko defee ak euh, du Mbaye ak suñu mbokki baax yi Barham incha allah matin bi ñoom ñëpp ñoo jàpp ci liggéey bi kon bu kenn toxal sa déglu ci kanam tuuti rek Pape Laye dina ñëw ak euh, Adama Ndione tënkal ci xabaar yi ñu suñu mbokki rédaction bi incha allah dara du leen cump kon nag ci kanam tuuti rek la loolu di am incha allah jërë ngeen jëf tafallahu li saman alayhi min albaaqi salamahu aysu an